out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it is some clarity To find your identity, it's mind over everything Arbi sifle na soq toj nen Franc cokaas soq mépp Franc day dem bàyyi leen rek ñu ci arène bi ngay raat na ngay raat raat da koy jaay ko daan na ko daan na ko moo ko ëpp doole moo ko ëpp doole Ada Fass ma lay wax na yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jaam ragalu ma loolu foo taxaw ma fekk la fa eh, Coly Faye yow dëggalal sa bopp daw laaxu nga dëxan bu seede nga doo dërëb boo dëggalee sa bopp dinaa la duma dinaa la ayca arbitre sifle waat na de arbitre sifle na de diggante ngan seen Ngagne Sène daw na jël na tànk Serigne Serigne bañ na daa diis Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne Sène Serigne Ndiaye ña nga ca de Ngagne Sène Serigne Ndiaye daw na jël ko Ngagne Sène di ko mbotti Serigne bañ na dafa diis dina la génneewaat bu la génnee nga ñàkk Ngagne Sène Serigne Ndiaye ña nga ca saaku ya oh Ngagne Sène Serigne Ndiaye Ngagne Sène Serigne Ndiaye bu la génnee di nga ñàkk bu la génnee dinañ la disqualifié waaw bu la génnee dinañ la disqualifié. Ngagne Sène Serigne ngañ seen Serigne Ndiaye ña nga ca saako a génne waaye ngañ day bañ ngañ seen bu la Serigne Ndiaye génnee nga ñàkk bu la Serigne génnee nga ñàkk ngañ seen am nga mu nga jël tànk ba waaye Serigne bañ daa diis ngañ seen Serigne Ndiaye Serigne daa diis ngañ seen Serigne Ndiaye oh ngañ bëri na ndeysaan dégg ngeen public bi di yuxu ngañ seen Serigne ngañ seen Serigne ña nga ca Papa Ndiaye ba léegi dara xewagul ngañ seen Serigne Serigne Ndiaye daan na ngañ seen Papa Ndiaye daan na ngañ seen jaay na ko doole daan na ko ayca ayca Papa Ndiaye demi-finale Gandia Fama Modou Diam Gandia Fama ngeen xaw a jàkkaar loolu Pape Maodo Diam Terry moo féete ndeyjoor demi-finale le poids léger Gandia Fama Modou Jam Téri Gandia Fama Modou Diam Terry waaye deuxième demi-finale baa ngi noonu Papa Sony Junior moom la ak ordinateur bu Saly Papa Ndiaye ordinateur bu sali moo féete ndeyjoor moom la ak Tony Junior loolu ci palais yi la. ayca mo ordinateur bu Saly ak Tony Signor waaye Gandia Fama Modou Diam Terry mi-temps nañ Junior ak Sawaay Mboti Tony Junior daan na bu sali wala arbitre arbitre nee na leen bëri leen Tony Junior ordinateur bu sali Tony Junior sol na ko ordinateur da nga koy jéem a kal Tony Junior ordinateur daw na war na ko ordinateur bu sali Tony Junior war na ko ndombo de ordinateur bu sali ak si Tony di dina ko daan wala arbitre dara xewagul ña nga ca saaku ya ña nga ca saaku ya de ña nga ca saaku ya de ña nga ca saaku ya arbitre àtte na ordinateur bu sali waaye Gandia Fama Papa Ndiaye ak Modou Jam Téeri ña nga ca loolu ci poids yi la Gandia Fama Modou Jam Terry ñanga dara xewagul le Papa Ndiaye Gandia Fama Modou Jam Terry Gandia Fama moo leen won ginaaw loolu demi-finale la Papa Ndiaye demi-finale poids léger Gandia Fama woo leen won ginaaw Gandia Fama Modou Jam Terry Papa Ndiaye demi-finale poids léger bëre nañ ba mi-temps di bërewaat eh Gandia Fama tenté na action waaye yeggalewul action de moom la ak Modou Jam Terry Gandia Fama Modou Jam Terry demi-finale poids léger Papa Ndiaye Lamine Seck na borom looro Lamine di la wax rek ñoo ngi ci demi-finale poids la wax ne Doudou Sané moo fi génne léegi Boy Faye par recours fi mu toll nii nag poids lourd moo des Serigne Ndiaye numéro 2 Louis Thior eh Doudou Sané Doudou Sané des Ablaye Ndiaye Louis Thior numéro 2 ñu naan ko Modou Pouye ak Serigne Ndiaye. waaye Modou Jam Téeri moo nekk di bëri nii moom a Gandia Fama demi finale pas laissé beneen demi finale bi ordinateur bu sali moom la ak Tony Junior tey Manga production nag moo fi woote woon waaye Père Manga nag ni ngeen ko xamee dafa voyagé mu nga Tunisie tey woote bés bu mel nii tuddee ko Amadou Ba waaye am yeneen invité yoo xamante ni tey ñoo ngi fi teew Gandia Fama Jam Téeri waaw dafa xaw a tawat moom Père Manga di ko ñaanal wér gu yaram. Lamine noo gisee lamb ji tey. la daan am rek moo am Boucar ambiance bi bëri na amateurs yi ñëw nañ amateurs yi ñëw nañ bëri day champion. bi bëri na. tabaski bee tax nag mbër yu bëri ñëw. am nañ yar am yi teggin daal xam naa ne yar ak teggin. loo jëlee arène nationale. Fourrière lañ daan. Fourrière lañ daan. oh malheureusement pour Fourrière. wallaay yërëm naa ko. daan nañ mbër. yërëm naa ko trop. waaye mbër feeñ na tamit taatu taatu nga. waaw waaw. waaye lamb am na coow de. lamb ji coow. waaw bëri bi nag temps yi bari na coow Lamine. première action bi am na coow waaw. ayca fii tamit tey lamb ji bëri na ay recours lool. waaw boobu booy fay a ngi noonu ndeysaan dafa daan ba njokk victoire Doudou Sané déposé recours ñu joxaat Doudou Sané recours bi ñi mu àndal sax kaas nañ mais daf leen ne garaawul. lamb la rek sport la. ayca Tony Junior moom la ak ordinateur sali Tony faaxaan na ko waaye dara xewewul. Tony Junior ordinateur bu Saly demi-finale pas laissé animation Mbayang lu Momo waaye Gandia Fama ak Modou Jam Teeri seen combat bi yàgg na te métti mitaan nañ waaye gis nga Doudou Sané ma nga ca digg géew ba di xaar diggante Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye ak Louis Thior kan la si am demi-finale poids lourd du nag Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye. waaw kon Doudou Sané Louis Dior numéro 2. waaw. bi jeex na arbitre kan lay jox victoire fii nii. ña ngay concerté wu en attendant. te daa mel ni avertissement amul foofu noonu. waaye Tony Junior bu sali Tony Junior côté na ko da koy daan wala dara xewagul eh, Tony Junior daw na di ko songu ordinateur bu sali moom la ak Tony Junior. eh lamb ji yëngatu na am na ambiance waaw temps daa mel ni dañ leen di mayaat benn 3 leen. ay ca Tony Junior ordinateur bu Saly ñaari mbër yaa nga ca waaye dara xewagul ba léegi Papa Ndiaye daa am picc nag si si si si am picc si gémmiñ de lan moo la def li lu la def lu la def ay ca noonu la demee waaye du nuyu suma waay rek Ablaye Sarr borom Ñaaxar doom day maam Waly Sène ay ca noonu la deme de eh, animation Mbayang Loum Momo Ngom Tony Signor ordinateur bu sali seen combat bi yàgg na te metti doole feeñ na fi mu toll nii moom koofur a des koofur rek a des ndeysaan ak endurance ordinateur bu Saly moo féete ndeyjoor moom la ak Tony moo féete càmmoñ moo dëkk Kër Mbir wala nga ne moo dëkk Jëndeer moom Tony Signor fii si stadium Iba Mar Diop ak la structure de Manga Production di si ànd ak Ka suma waa ji borom fayil doonu siñor ña nga ku nekk am na ngemb fii Lamine Zongale xaj na fi Jaxabal xaj na fi Kottu Wéeru xaj na fi. ah Tony Nder tey am na client moom yàkkalewul fenn moom. am na client parce que xale dafa mën a bëri ordinateur bu sal. waaw wane na ko de. bëriwul nag li mu ñëw Dakar mais àll bi tamit mu ngi def ay preuve doone daal ñu doon patam patamee kii bokku ci. ca noonu la demee. combat ba métti na. Tony Junior Ordinateur bu Saly. arbitre mi-temps dañuy mi-temps waat waaye Modou jam teeri nga noonu de moom la ak Gandia Fama waaw normalement est-ce que duñ leen may 3 minutes parce que bëri na ñaari 5 minutes ba mu jeex te su ma juumul kenn amul avertissement parce que boo amoon avertissement rek dañuy joxe victoire. ca ginnaaw de Liwi Coor numéro 2 ñu naan ko Mamadou Pouy moo jege mbaaw moom la ak Doudou Sané wala nga ne Mamadou Lamine Sané ñu naan ko xadafi bu Diofior ay ca ñanga ca de Modou Jam Teeri moom la ak Ganja Fama Papa Ndiaye Zongale euh, Mboti Ganja Fama Modou Jam Téeri dara xewagul de waaye Modou Pouye ak Doudou Sané ña ne la ca ginnaaw c'est demi-finale poids demi-finale poids léger jaxasoo nañ waaw Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye taxaw di leen xaar waaye Lamine Modou Pouye ak Doudou Sané ña nga ca ginnaaw mhm. Modou Pouye moo féete ndeyjoor ci ay compétition yu am solo lañ jóge muy drapeau chef de l'état bi. Doudou Sané nag ak Ndakaaru waat moo ba rek. ayca ña nga ca Doudou Sané moo du puy waaye o oh, Tony ak ordinateur bu sali seen combat bi yàgg a tamit eh oh, dal na tànk ba mu may dal na tànk ba mu may Doudou Sané filé ko c'est tête Modou Pouye kan moo am sens daa dal ci kaw gaay day sinon day dafa dal ci gaay sinon day daanu Modou Pouye dafa mën a tànk nag Lamine Modou Pouye Doudou Sané waaye gàññe faama Modou jam teeri seen combat bi yàgg na tamit demi-finale yu neex demi-finale yu métti ngay gis fii nii demi-finale poids lourd demi-finale poids léger tout confondu ay ca arbitre Grand Tidiane ay ca Modou Pouye Doudou Sané ña ca ba léegi dara xewagul Modou Pouye day jël tànk ya waaye Doudou a diis Modou Pouye Doudou Sané ña nga ca avertissement ordinateur bu sali am na ñaari avertissement ay ca arbitre sifflé waat na eh, ordinateur bu sali jël na ba mu mooy de jël na ba mooy disqualifié nañ Modou Jam Terry du du euh, Gandia Fama day par décision arbitrale Gandia Fama joxoñ na ko 4 Gandia Fama qualifié na final Lamine Gandia Fama par décision arbitrale aca Doudou Sané Modou Pouye ña nga caa de eh, eh Doudou Sané Modou Pouye Doudou Sané Modou Pouye diis Modou puy champion la Lamine. woo na de woo na de. dafa mën a bëre. waaw. dafa mën a bëre dafa nekkoon ci ay tolof tolof mais dafa mën a bëre. torop torop mën na bëre. jamono jii muy bëre rek rek fii Demba Diop boobu mu ngi ci digg ndëndam. daan bëre na fi arène daan jël bu rëy fii Iba Mar gi. ayca Tony Junior Lamine jàll na par décision arbitrale. Tony Junior day jàll par décision arbitrale temps bi dafa jeex waaye Doudou Sané jël na ko de Modou Pouye bañ na. Doudou Sané jël na Modou Pouye jël na tànk ba Modou Pouye bañ na de Doudou Sané Modou Pouye eh, eh, eh. Doudou Doudou Sané borom Diofior ñu naan ko Xadafi Doudou Sané mook Modou Pouye Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye ña nga ca ginnaaw ñoomi tamit ña nga ca ginnaaw Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye bëri woon nañ chef de l'état bi Lamine Serigne Ndiaye génne ko ñuy bëriwaat fii revanche revanche ou confirmation eh Serigne Ndiaye daw na jël ko takk ko mu may Ablaye Ndiaye fils de Robert mook Moussa ko coriace eh taxabal wala lan jël na tànk ba mu raamloo ko Ablaye njaay sukuna raam na Serigne Ndiaye da koy faqat wala Serigne Ndiaye remplacé ko jël na tànk ba Serigne Ndiaye taxabal ba mooy de. Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye dina ko plaqué daan na ko daan na ko de Serigne Ndiaye daan na ko de Serigne Ndiaye moo daan Ablaye Ndiaye de eh Modou Pouy Modou Pouy jël na tànk bi Doudou da eh, ko de Doudou Sané daan na Modou Pouy moo daan moo daan eh Doudou Sané Doudou Sané daan na ko Doudou Sané daan de Ablaye Ndiaye daan nañ ko Modou Pouye daanu na de Papa Ndiaye Doudou Sané daan ko waaye Serigne Ndiaye tamit Serigne Ndiaye tamit daan na Ablaye Ndiaye Papa Ndiaye eh ja jaxasoo na de lamb ja jaxasoo na working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All takes is some clarity To find your identity, it's mind over everything Arbi sibla na, soq toj nen, bana cokas, soq mep Fara day dem, bàyyi leen na ngay raas ba koy ko daan na ko daan na ko moo ko ëpp doole moo ko ëpp doole Ada Fass ma lay wax na yow am nga combat bu mat combat boo leeree muy sa jàmm ragalu ma loolu foo taxaw ma fekk la mais eh, Coly Faye sa bopp daw laaxu nga dëxan bu seede nga doo dërëb boo dëggalee sa bopp dinaa la duma dinaa la da